instant boobu moom c'était un peu rapide naturel parce que dama nekkoon dama pare saison saison bi ma defoon après bi ñu commencé deuxième saison bi hivernale si la euh, sama président Babacar Ndiaye si la ma woo boobu waroon def ay tests sax fële dama waroon dem Turquie boobu amoon naa visa bi ba pare ci semaine boobu laa waroon dem après Babacar Ndiaye si la ma woo ne ma am nga fi benn proposition contrat benn équipe bu nekk Tanzanie tudd Simba léegi dama bëggoon ñu waxtaan si. léegi ma ne ko amul problème si laa ñëwee maak moom ñu toog après mu expliqué moom ma gis tamit contrat bi man sama bopp xam naa ni arrangé na ma après moom mu ne ma su fekkee arrangé na rek après voilà quoi mën nga mën nga dem ma ne ko contrat moo gën fuuf test parce que test xamoo loo fay fekk kon kon contrat bi tegu na te xam naa ni ça va na ma te yéen tamit gis naa ne arrangé na la kon mën nañ ko signé ma dem tenter sama chance foofu noonu la demee xam nga soo risqué wul moom xam naa ne doo am dara da ngay risqué sa vie rek pour mën a am dara nit ki moom da ngay tenté sa chance aussi parce que man bëgg naa di dem Europe équipe yu gën a mag mais tamit am na opportunité yoo xam ne soo ko amee saisir ko rek saisir sa chance nga dem après yàlla lu mu la fa may rek mu doon loolu parce que man loolu laa gëm nit lu taxaw rek def ko après voilà ko waaw langue bi moo ci xawoon métti nag parce que ñoom dañoo am seen langue boobu muy lii mais dañuy làkk anglais te may dem foofu <laughs> anglais bi bàyyi demeewul noonu au début dama doon traduire rek sama connexion bi yëpp moo ko jeexal mais pour entre non téléphone téléphone laa jël di traduire rek man moom damay teg nii rek traduire ne la nii <laughs> après nga liir wax soo waxee man la comprendre ba yow tamit nga traduire jox ma comme ay muuma mais entre joueur moom c'était pas c'était pas difficile parce que joueur moom soo ñëwee si wàllum football ngeen di waxante si ngeen di defee lépp kon du metti lépp dañ koy teg ci affaire football rek moo tax intégration bi méttiwul woon ko hmm. waaw même même avant championnat bi di commencé sax pré-saison bi dañoo amoon cinq matchs ma dugal ci trois buts ci cinq matchs yi mais quatre sax la joué quatre matchs laa joué quoi première bi fekkee ma léegi après par la suite biñ delloo dëkk ba Tanzanie. après si lañ euh, commencé championnat bi ñu am deux matchs après si la blessé blessure bi nag dafa duré woon deux mois parce que toog naa deux mois yoo xam ne football bu te ñoom parfois dañ koy enchaîner comme perte naa match yu bari bari bari moo tax championnat fin bi laa commencé dugal bi yooyu noonu man bi moment kaaf bi laa fekkee quoi te yi ñu ngi apprécier mais xam naa ni je peux mieux foofu moom dama damay sant yàlla rek parce que dama dem rek bokk. parce que dama naan nit ki moom so la façon dont tu tu loolu noonu lañ lay accueillir ñoom parce que am na loo xam ne soo ko wanee rek du ne par force dañ lay bëgg mais bu fekkee amour bi tuuti la sax par force day feeñ parce que yaa leen wan loolu lu leen encouragé ñu bëgg la peut-être tamit ñu ñu bëgg jubilé bi rek ñoom xam nga loolu moo leen rey célébration bi mais man ak ñoom moom ça se bien ñoom accueillir nañ ma ñoom tamit fan si yi ñu ngi may envoyé message sur Instagram di ma encouragé. di kontaan tamit si performance yi waaw tout se passe bien avec eux. comme yeneen entraîneur rek parce que nit moom lu tax entraîneur bi di wax si yow wala jox la confiance yow yaa koy yow yaa koy def parce que temps bi may jógee si blessure di commencer entraîner ndànk-ndànk noonu demeewul woon noonu parce que j'étais pas a 100 pour cent man moom su ma zéewul rek damay xaw a frustré quoi. ma xool deux matchs dama doon sooxaale nag j'étais pas bien mais après par la suite ñu am ñaari match yoo xam ne booleewu ma sax si liste bi ma commencé frustré na après si laa ko woo ma woo ko boobu ñoom ñu ngi waroon voyager benn dañoo waroon dem euh, qualification kaf léegi yóbbu ma nag même voyage bi sax dew ma woon avant ñoom ñuy voyage si guddi gi si laa ko woo ne ko lan mooy problème bi quoi parce que lu gën a rafet sax mooy ñu ànd même si suñu voyage ma entraîné ak club bi sax moo gën nga bàyyam fi eh, waxoo ma dara ak moom ñu commencé wax wax mu ni ma noodu dara xam nga calme toi c'est juste que t'es pas à pour cent léegi dama lay bàyyi ba nga ba nga nekk à cent pour cent man xam naa ne t'as des qualité mën nga jàppale équipe bi mais bàyyil ba pare dama lay may juste temps après moom tamit mu expliqué ma xamal ma après par la suite si lañ commencé bi ma commencé football nag mu jox ma confiance dama jox naa la confiance léegi nag yow yaay wane nit ñi yow yaay après si la commencé nag affaire yi yàlla def affaire di ñëw ndànk-ndànk man moom relation bi nice quoi man ak moom waaye. waaw loolu loolu comme comme comme comme yeneen joueurs yi rek loolu moom mënul ñàkk ndax defe naa ni championnat moom soo ko joué ba pare par rapport ak say performance après c'est normal club yi di contacter mais côté boobu moom duma ma ci xam lu bari ndax man moom su ma paree ci match yi moom uti naa lu ma lekk te dinaa nelaw yaa ngi comprendre loolu moom bàyyi naa ko sama agent bu géré ko waaw xam nga bi may nekk Sénégal dama ni su ma joué équipe bu may nekk dama naan damay joué benn année bëgg naa am équipe bu gën a mag yàlla jàppale ma ma dem Simba moo gën a mag Tëngéej léegi bi may joué Simba tamit loolu laa démarré bëgg naa su saison bi jeexee tamit ma am club bu gën a mag ak fu mu mënti nekk man pare naa pour dem jaayante parce moom def naa loolu sama bopp bëgg naa nag di football Europe comme gars yi ni ñu ma ko souhaité te fierté la tamit sama waa dëkk ak ñu may supporté gis ma ci club yu mag yi waaw ñu may ñaanal bu baax mais tey jii su loolu amul tamit su ma waree toogaat Simba damay toogaat Simba gën a liggéey waaw. man Real Madrid. te yàlla ma sa bëgg waay war na mën a ne de war na mën a ne de bu baax a baax <laughs> ah gars yi gars yi suñu wax loolu dañu war a di tegaale Wally Seck ay feccaale <laughs> yow gars gaay yi mu bëgg rek <laughs> mais dama ci dama ci sant yàlla bu baax parce que yenn saa nga gis commentaire yoo xam ne nit doo ko xam mais mu wax si yow loo xam ne yow doo ko foogee sax gars yi dañ lay encouragé dañ lay envoyé message di wax Aliou la lan lay xaar Aliou la lan lay xaar après man man ay ree la may def parce que ñoom ñoo sérieux mais man loolu mënuma ci sérieux quoi comme Aliou Cissé loolu tax woowu la man ma nekk ci di xalaat ak yooyu noonu man su may tëdd nelaw man naa am mayga rek mayga bi saf ma dóor dem tëdd nelaw maa ngi liggéey daal mais sama rêve la quoi sama rêve la ma joué équipe nationale en représenté sama pays xam nga tey suñ ma woowoon suba suba pare na parce que je la nation tey suñu ma tey ñëwal jouer pare naa pour jouer parce que mooy sama rêve te ñaan naa yàlla un jour sama heure su jotee rek incha allah loolu dina mën a ne. non non non non non. waaw joué naa si U23 yi joué naa tamit euh, équipe nationale locale bi aussi. Koto waaw. naa Koto ak euh, Serigne Saliou Dia aussi. ah nice de ah ñoom ñoo ñu <laughs> indil Coupe d'Afrique kay ah nice kay nice waaw fierté la quoi ndax fi ma nekkat na de ñoom ñoo tax ñu gën ma respecté ñoom ñoo tax gars yi respecté ma xam nga gën a xam joueurs Sénégal yi parce que ñoom sax Sénégal su daan football ñoom ñëpp dañuy summeeku si benn salon lañuy nekk di seetaan suñu fekkee centre ba quoi parce que parfois foofu la ñuy tase di seetaan match yi ñoom tamit dañuy supporter équipe bi xam nga suñ gañee si suñ dugalee si man la ñuy ñëw kottu ma yuuxu ma xam nga mu doon loo xam ne fierté la ci man quoi waaw ñoom tamit joueurs yëpp maa leen di encouragé bu baax di leen félicité di leen ñaanal jàmm ñoom ñëpp ñëpp ñëpp ñëpp yàlla defal leen jàmm xam nga ndam di gën a yokk yeneen coupe bi ñëw Qatar bii ñu jëm tamit yàlla defal leen jàmm bu baax baax a baax coupe bi war na mën a ñëw parce que talent baa ngi fi non coupe bi war na mën a ñëw ah. wallahi billaay ah. mën nañ ko de non billaay teelu ah. ah ka yow coupe non équipe boo gis yow Barça ngi nii kan moo ko gën a nekk équipe bu mag wala ay Bayern Real Madrid équipe boo gis am na lu ko manqué mais dafa mel ni gars yi ñu ngi koy gis mais man moom gisuma ci dara lu manqué gars ñu ngi baax de. non gars yi ngi baax de leer laa la wax. <laughs> waaw man man moom numéro 10 lañ ma yore waaw man moom lañ ma formé numéro 10 laa yàgg joué ak parfois damay joué électron libre mais comme que parfois dañ may damay damay. préféré di garder ballon parce que am na foo xam ne moom vitesse ngay utiliser te gars yi dañuy gis fit boobu noonu am naa ko te di éliminer benn ñaar ba ñett léegi ñu ni fan la gën a euh, important yi mooy nga jouer comme excentré foofu ngay gën a jege euh, défense beeg yooyu noonu léegi foofu lañ commencé nag di ma travailler parfois mais euh, phase défensive bi moom dama ci amoon problème pour dem retour parce que tàmm ma ko bi ngay nekk xale ba ni ngay màggee 10 ngay jouer am na yoo xam ne doo ko doo ko tàmm léegi faiblesse la woon léegi nag da nga ci travail ma travaillé si ba léegi ma commencé adapté wu ci excentré bi may joué excentré gauche ou excentré droit fu mu mënti joué rek après je suis à hmm. comme li ma waxoon rek mu Sénégal tamit am nañ ay joueurs yu baax xam am nañ joueurs yu baax joueurs yu mën a football championnat bi tamit nice am na lu bari tamit lu ñu war a changer mais moom mën naa wax ne championnat Tanzanie moo gën a élevé moo gën a am niveau aussi loolu mën naa ko wax mais bu fekkee côté joueur moom xam naa ne fii moo ëpp talent foofu mais fële ni ñuy doxalee moom moo gën a professionnel aussi te ñoo gën a jox gëdd joueur aussi man loolu gis naa ko foofu te condition yi ngay am foofu xam naa ne mënoo ko am Sénégal waaw loolu moom gis naa ko ko non dañuy joué bu baax a baax parce que joueur yi fii xam nga ku si nekk da am famille te am na loo xam ne war na la mën a motiver quoi tey jii soo bëggee gasloo benn kàmb fii nga ne ma ah soo ko gasee ba pare saay du la jox dara de aw ma dara de su ma naroon def benn une heure nii saay ay jour laa lay toogal de di ko gas ndànk ba ndànk damay jël sama temps mais ma saay lii soo ci gaawee ma tegal la benn 200000 dama koy rey fële nag ñun noonu la ñuy def parfois bi day toog ne match su ngeen ko gañee ma tegal leen temps léegi saay su ma nekkoon benn 50 pour cent damay dem yokkaat entraînement yi préparé match bi de te loolu motivation la salaire bi tamit dafa dafa am important parce que tey jii ku nekk yow soo nekkul joueur sax tey ku si nekk fin du mois soo doon am dara sa famille dañ ci kontaan sa famille nga nga koy yóbbu ko loolu motivation la te loolu am na club yu bëri Sénégal man football naa fi jugé wu ma mais am na club yu bari yoo xam ne mën nga joué bay bëgg de dee dañuy toog ay 3 mois gis naa ko moo tax ma sañ see wax dañ duñ la fay te prime lañ lay jéem a kii dañ ciy jàppanteeg yow sax man dal loolu dal na ma moo tax kon xam naa ko bu baax a baax a baax te loolu suñ ko changé woon tuuti tuuti ba pare télé yi gën a ñëw aussi ñëpp ñëpp ñu dooleel télé yi. te lay ñëw ñu jàppale joueurs yi affaire dina gën a yëgal parce que talent baa mais motivation moo des Sénégal du leneen. waaw affaire bi dama naan bu bu dara bu buñ buñ dara buñ nekk di changé dara dara dara dara nañ gëm rek nañ gëm comme ni ñu gëmee nii dañuy jël championnat ba jël ko gagné coupe bi tamit ba ñu ngi nii dañuy dem euh, qualification dañuy dem euh, Champions League nañ demee motivation bi rek ba pare gën a yokk niveau bi tamit man loolu laa leen conseil niveau bi dañ koy yokk gëm seen bopp rek suñ gëmee ñoom dinañ sori dañuy sori par force parce que talent bi mu ngi foofu mën nañ ko mën nañ ko bu baax di leen ñaanal tamit ñu sori ci affaire bi bu baax a baax yàlla dimbali leen. waaw premièrement yéen tamit di leen di leen remercier déplacement bi ngeen def tamit yombul di si am contentement bu baax a baax di leen masaw tamit si yoon bi. di remercier Sénégalais yëpp di leen wax merci ci message d' yi ñu ngi may woo di ma féliciter ñu ngi may encourager yéene nañ ma ñu ngi may ñaanal di remercier famille beeg yëpp yëpp yëpp ak club yi ma jot a jaar fii ak école football Médiour Mbour Petite Côte bi ma jaar jàmbaar bi ma jaar Tëngéej FC di ziar ñëpp ñoom tamit ñëpp dama leen di wax merci aw ma seen fay waaw.